pour terminer la situation politique du Sénégal, moi je pense que toute, toute personne qui, qui parle de report est un ennemi de la République. Ah euh, report au nom de Karim Wade Ou bien ah, Je voudrais savoir. On, report les élections au nom d'une personne qui n'a pas réglé sa, euh, son problème de binationalité. C'est juste ça. Ah. C'est-à-dire on est là pour le bon vouloir d'une personne ou bien pour le bon vouloir du peuple. à un moment donné ñun xam lu ñu bëgg on n'a rien contre le PDS PDS aujourd'hui comme ni ko suma waa ji waxee c'est un parti c'est l'un des plus anciens partis au Sénégal aujourd'hui il devait un moment euh, songer à une autre alternative ils ont dañu waroon préparer wu quoi ouais mais aussi loolu aussi tamit aussi je pense que c'est c'est typiquement Abdoulaye Wade qui s'est trop entêté à vouloir euh, ah, à, à vouloir à vouloir pousser sa famille a dit hmm. nee nañ fi mu ne nii ku ne Abdoulaye Wade moo wax hmm. da ngay sonal Abdoulaye Wade rek mu ngi toog fi mu toog. waaw mais mais nekk ci nekk ci nekk ci jàmm mais ku xam politique xam ne Abdoulaye mooy joxe ordre pour période. mais talu talu ko sax mais fu mu toog mais téléphone mën na ko wax. taru leen de. mais mooy joxe directive wala son fils mooy joxe ay directives. xam nga est-ce que son fils moo koy joxe xam nga xam nga aujourd'hui moo tax ma bëgg na ñu invité xam nga aujourd'hui la sens par exemple entre guillemets que par exemple Ousmane Sonko ah, mm-hmm. il a il a il a par exemple il a eu à à songer certains scénarios. ba mën a présenter mais su newoon ñetti ñetti moom la rek heure bii nii kenn waxatu ko.

bëgg na Karim na na tontu quoi et puis ñenn ñi aussi dañuy génn ne la Karim Wade moom a envoyé message Karim Wade nee na ni nee na genn wàll gi wax yëpp. te kenn du la woon message bu Karim kenn gis Karim. Euh, te li ma donc c'est dommage pour un report moom je ne pense pas que ça soit une. non c'est c'est en fait c'est-à-dire les conséquences et puis les gens n'ont pas le temps. non les conséquences sont énormes les conséquences sont énormes alors quand tu dis report il y a il y a d'autres problèmes à régler. quand même il y a d'autres problèmes à régler aujourd'hui tey Sénégal fu ñu toll ci wàllu en tout cas difficulté. ah ci population fu mu toll tal nañu leen xam lu ñu bëgg ñu jël suñuy destiné jox ko ci nit bi nga xam ne moom lañu jàpp ci moo mën a diriger réew mi mm-hmm. on avance on a on, on, on s'est fait trop de mal le Sénégal a connu trop trop trop trop de violence aujourd'hui on, on se reconnaît plus non, le Sénégal est divisé dafa am dafa dem ba mel ni ñaari ñaari pays la dans les familles xam nga dans les familles ñii seen sëy na ñii seen ànd ànd yàqu na mais après tu viens tu me dis report élection bi rek moo mën a andi réconciliation c'est le moment de la réconciliation. Hmm. tu fais un report alors ça ça veut dire quoi. et puis boo defee report yan jeexital lay am donc ce qui veut dire da ngaa weddi conseil constitutionnel. quand on parle de la sacralité des institutions alors quand tu dis report ça veut dire tu, n'es pas d'accord avec la décision du conseil constitutionnel. Mm. et ça remet en question en quelque sorte le travail de de euh, de toute une corporation.